lay cosaan ci feet yi ak nuñ ko mënti tuddee loolu benn mandargal la buy màndargal bépp diine ak beneen budul moom bari na ay mbind ci sharia yu ñëw di tënk feetu jullit ñi ci ñaar lii di korite ak tabaski ak bésu ajjuma yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu ne ñeel ne bépp xeet feet yan jullit ñi yi mooy seen feet lu dul loolu nag lu mel ni feetu nawel wala 31 décembre wala yeneen yu dul yooyu daganul kat ci jullit mu daldi koy feete wala muy ndokkeel ña koy def wala muy bokk ak ñoom ci feete yooyu da ciy dugg tamit lii di jox leen ñoom ay cadeau wala bokk jaay leen lépp loo xamante ne duñ ko soxla ci seen bis yooyu le moo xam ay sapin la wala ay lamp la wala ay lekk la loolu nag duñ ko tere ngir ñaari mbir bi si jiitu mooy def ci nekk niru niru ak keneen kudul jullit te ak saxalal tamit ñoom dañu nekk ci weddi yàlla te lislaam kat dafa ñëw di xaraamal li di bi muy niru nirul ak koo xamante ne du jullit ñaareel bi mooy feet yooyu daf cee nekk sos leneen lu bokkut ak diine lislaam ibnul qayyim dafa wax mu ne bu ne ndokkal leen ñoom ci seen feet yooyu ñu jago loolu dafa xaram ci dëppoo borom xam-xam yi ngir kat ndokkal leen mel ni wax bonne année wala bon noël wala bokk yu mel noonu loolu ki ko wax bu nekkee mucc na ci kéeféer muccul tamit ci def lu xaraam loolu nag firiwul ñaawal jëflante wala jalgati ci ñoom ngir ñàkk bokk ak ñoom feet loolu du leen lu dul juti bi daal di ràññatle gëm ak lislaamam walis leneen lu dul loolu bu nekkee nag lii di jël seeni ay kado loolu màndargalawul lii di bokk ak ñoom feet yooyu ngir mën nañ ko jël ci buntu tàppe seen xol ak woo leen ci lislaam fileeg loolu nekkul ñoom la ñu rendi cheikhul islaam ibni taymi rahmatullahi alayhi mu ne bu nekkee nangu seeni kado loolu dagan na ngir ali ibni abi talib jël na kado buñ ko mayoon ci la nga xamante ne ñoom seen feet la ci premier an waaye tamit abi barza moom it amoon ay dëkkandoo majuus ñu doon ko may ay ñam ci seeni festival ak seeni ndaje yooyu le mu doon wax waa këram mën ngeen jël bu nekkee ay fruits la waaye bu nekkee lu ñu rendi bu leen ko jël